suuratu maryama lii mooy saaru mariyama makka la wàcci juróom-ñeent fukki aaya ak juróom-ñett soo jëlee baatami juróom-ñaar téeméeri baat la ak juróom-ñett fukk soo jëlee ay xarafam ñetti junni xaraf la ak juróom-ñaari téeméer trois mille sept cent saar la woowu dana jàngale diggante yonentu yàlla ya fi mu doon ñaanee yàlla doom ak ni ko ko yàlla mayee gannaaw bi mu demee ba naagu ca moom ak soxnaam muy ñaari màgget yàlla jaarale ca doom saar wi dana ko jàngale muy tekki ne karte nag yàlla ga lotut ci dara saar wi dana jàngale yaxya nekk gim nekk ndaw yàlla jox ko nubuwatu yëkkati téere tamit jox ko ci yaa yaxya xusil kitaab bi quwatin waatay naawul xukuma sabiyan dana ci jàngale tamit boo nekkee liggéeykat dib yonantu wala nga ab ab wëlliyu wala ngay ab boroom xam-xam dundab doomu aadama dafa gàtt fexeel ba fàggu ndono luy mën a mottali sa liggéey waaye ku xamut ndono fa nga xem sa lépp xem fa sa kër yaa nag ragal ñàkk ndono taxoon muy ñaan yàlla doom ju war a mottali mission xam waaye doomi bàyyi taxam yi ñu gis ñoo gën a yées ci ba banu Israël seen bakkan lañ topp lim fi liggéey ak néew bu leen ko baxee ñu yàq ko moo taxoon muy ñaan yàlla doom ci fahab lii min ladunka waliyan yarisu ni wa yarisu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiyan ah, waaye tamit dana ci jàngale xisaab yonentu yàlla maanaam Isa ak soqeekoo gim soqeekoo ci yaayam sayyidatuna Maryama ci lu duwut baay gannaaw bi yaayam amee fukki at ak ñett ñii fukki at ci la koy doora ci lay doora juddu. kon teel a am doom yàqu dara ci jigéen teel a dugg ci néegam say yàqu dara ci jigéen naa Aïcha juróom-benn xat ci la dugg ci néegam sëy juróom-ñeenti xat lañ ko jébbale kon nag coow yi bu fi nekkee ci tubaab yi ñu naan mariage précoce beeg yu kenn xamut te waxuñ njaalo précoce loolu kon jar naa laajaat njaalo gu teel gi waxuñ ci dara tey wax dara ci takk sëy yu teel yi ndax takk sa teel yi lislaam xoote buñ ko wuy ji woon mën nañoo mukki ci njaaloogu teel gi yooyu yëpp téere bi dana dana ko jàngale su ko defee sayyidatuna Maryama ak ni ko mat wi ñëwaleeg fa mujj ak gàcce gëm gàdduwa nag ak la ko néegu yaayam ak néegu baayam a wax ne ko doon woo mbon ci sa néegu ndey doon woo ko ci sa néegu baay foo jëlee mbon ak wax gañ ko wax mu mu joxoñ xale ba mu nekk ci berceau di Isa wax bokk ci liir yi wax ci seen ak ndaw liirab ashaabul uxdud ba ca la bokkoon liirab yonentu yàlla eh, yusufa ca la bokkoon ci wa shahida shahidun min ahliha gannaaw si dina ci tudd tamit fukk yonentu saari tudd na leen dina tudd yonentu yàlla ibrahima dina tudd yàlla idrisa dina tudd yonentu yàlla muusa dina tudd yonentu yàlla sakariya ak maanaam Isa mu mel noonu ba mat fukki yonantu kon saar wi loolu la làmboo mu ubbee ni yàlla baaxoo di ubbee saaram yi muy ay code code bii nag lam ca côté moo gën a ci xaraf yi muy côté bi ci gën a gën caa bari mooy juróomi xaraf kooku ñaar rek la ci xaamiim xayin siin qaaf ak kaafin yaa ayn saat bu ko mooy am na yoo xam ne seen code ya ñaar la alif laam ak code ba kon ñeent la lu mel ni alif laam am yoo xam ne code ba tabaarakallaahu eh, ñett la alif laam mim zalikal kitaab am yoo xam ne code ba ñaar la yaasin ak hamim am yoo xam ne code ba benn la nuun ak kaaf ak saat bii nag bi ñetti juróomi xaraf la muy kaaf yaa ayun saat ibnu abbas mu ne tur la ci turu yàlla yi ñii ne tur la ci turu alquran yi ñii ne tur la ci saar wi ñenn ñene ngëñ la gu yàlla gëñ ñenn ñene daal kot la xaraf wu ne dafa am turu yàlla wu muy junji kaaf gi daal mooy junji karim di junji kabiir ak wépp turu bàyyi ko ci kaaf hëga mooy junji haadi ak bépp turu bàyyi ko ci ha yaaga mooy junji maanaam rahim maanaam ak bépp tur maanaam bu bàyyi ko ci bu am yaa su ko defee tamit ayin nga mooy junji alim ak bépp tur wu am ayin saad ga mooy junji mooy junji sadiq kon ñu ne maanaam lépp boo ko jëlee mooy rek kaafin moom yàlla li xalqihi haadin li ibaadihi yadduhu fawqa aydihim aalimun bi bariyatihi saadiqun fi waxdihi soo jëlee lépp loolu la lay jox ne moom yàlla moomu daal mooy fegal mbindeefam yi mbooleem musiba yi mooy jindi ay jaamam kartanam ba tiim na mbooleem kartanu mbindeef yi mooy ki xam lépp ci mbindeefam yi mooy ki dëggu tamit ci dëhëlam boo jëlee kaafee yaa ayun saat nga décoté ko loolu la lay jox su ko defee nag sama borom a ngay wax bismillaahi sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur bay xéewal bépp buur bay xéewalaakoon bépp mbindéef ci àdduna bi arrahiimi buur bay xéewal ku ko soob ci àllaaxira kaafee yaa ayn saat yàlla xam lim ci namm zikru rahmati rabbika lii de tu mooy njàngatalu yërmandeeg sa borom abdahoo ca jaamam ba kan la mu ne Sakariya mooy Sakariya is naa daa ba nga xamee ne xoo na maanaam rabbuhu boromam ni daan ak xoo xafiyan ngay aji suufe is naa daa ba nga ne ñaan na rabbuhu boromam ni daan ak ñaan waaw ni daan ak xoote bu làmboo ñaan xafiyan bay aji suufe is naa daa ba nga ne maanaam ñaan ni xoo boromam xoona rabbuhu boromam ni daan ak xoo gu làmboo ñaan xafiyan ngay aji nëbbu ndax ci guddi la ko def xaala mu ne rabbi yow sama borom inni naka man wahana doxadina alasmu mbooleem yax yi ñenn ñe ne alasmu lenn ci yax yi min nii tukkee ko ci man wastaala wisaaroona ar rësu bopp bi ci man shayban ci bi jaaw sama bopp bi wisaaroona ci bi jaaw ndax màgget naa walam akun musumaa nekk bi duaayika ci ñaan gi ma la daan ñaan rabbi yow sama borom yan nekk ko daan sooy musuma sooy ci sa ñaan kon bul ma sooyal ci lii ma bëgg laa ñaan wa inni naka man xiftu damaa ragal mawaaliya sama doomi bàyyi tëx yi min waraayi sama gannaaw su ma dee bàyyi leen fi rek te aw ma ndono li ma liggéeyoon yëpp ñu yàq ko wa kaanat nekk na imraati sama soxna si xaaqiran di aji jaasir man ta doom fa hab yàlla nga may lii ñaal ma mi min lun ka fa yow yan doom ju méngoo sama mbir yarisu lii kook dana doon ma wa yarisu mu doon min aali yaquba ci bi ci kër néeg yaquba mu doon ca nu bootu ak xam-xam wajaalu yàlla nga def doom ji rabbi yow sama borom radiyan muy kuñ gërëm yaa Zakariya sama borom ma ngi koy xuyu nag ne ko yaa Zakariya inaa naka ñun yàlla nu bashiru ko dana ñu bégal la bi min ci doom comme ni nga ko ñaanee maa nga koy wax sax tur wa ismuhu turam Yaxya yaxyaa lay doon lam naj al musuñ def la woo ñal ko min qablu ci njëkk sàmmi yan kuñ ko tuddee ku tudd yaxyaa mastaam qaala mu ne rabbi yow sama borom annee yakkoonu naka lay nekkee lii ñaal ma xulaamum doom ndax may xam jeneen soxna wala ci soxna su màgget si laa koy xamee ndax wa kaana nekk na imraati sama soxna si xaaqiran di aji jaasir wa qad balaxtu sa dëgg-dëgg jot naa minal kibir ci mage itiyan ak jéggi dayo xam naa juróom-ñeent fukki at ñenn ñene xam téeméeri at ak ñaar fukk sama jabar xam juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñett kon nag ñun ñaari màgget ñii ngay jaarale doom wala man menn màgget mii maay takk beneen xale xaala mu ne sama borom ne ko mbir mi kat kazalika noonu la demee mooy rek dana bi dana dana dana dana dana dogal doom ci seen diggante yéen ñaar ñu màgget ñi le xaala wax na rabbuka borom sa ne woo moom mu xàlle ya ci man mii di yàlla may la doom fekk yaa ngi màgget yaa sa soxna xëy boo ko defee nga ne xëy lu jàppandi la àll ci man lu tax ma ko danaa la woon mandarga muy tekke ne jàppandi na wa qad xalaqtu ko sa dëgg-dëgg bindoon naa la min qablu ci njëkk walam tàkku nekkoo woon shay an dara ma sos la kon nag bu ma la sosee ba nga xëy nekk li nga nekk ma moom nga nga nekk ko màgget ma mën a jël màgget jaare la ca doom moo gën a jafe foofu lu nekkutoon dara nga nekkal ko dara ndax jaarale màgget ci doom nga am na lu fa newoon ba pare su boobaa nag kon sof rek lay doon waaye yow mii maa la sosoon te woon dara kaala bu ko defee nag mu ne moom nga ma moom nag xam na doom ta ñàkk mu ngi ñëw yàlla wax na ko xaala mu ne kon yow sama borom ijaal yàlla nga def lii ñaal ma aayatan mandarga muy tegtale ne sama jabar dafa ëmb xaala mu ne ko aayatu ko sa mandarga allah tukkalima mooy nga ñàkk mën a wax ak naasam nit ñi ci lu du tudd yàlla salaasa layaalin ñetti guddi yoo ànd ak seen bëccëg ya boo ko defee yan mbir mu muy aji mat sëkk boo toogee ñetti fan yoo ànd ak seen bëccëg ya mënoo wax lu dul sàbbaal yàlla ak bàkk ko waaye waxi adduna mënut caa wax dara boobaa boo ko gisee rek xamal na sa soxna ëmb na fa xaraja génn na ala xaw ma ca nit ñoom nel mihraabi bàyyeekoo ca jàkka ja fekk ñoom ña ngi koy muñandiku pour ñu war a mën a julli dañ ko doon baaxoo bu ñëw ci lañ door a tijji faaw haa mu junji illéem jëm ci ñoom ne an eey sabbihoo na ngeen julli bu koratan ci njël wa asiyan ak ngoon ñaari waxtu yi rek lañ daan julli julleeg fajar ak julleeg maanaam timis aa ah, lii nag la ko yàlla wax doom jaam na yàlla taliwut dara sa kër yaa ngoog sama borom wane yërmandeem ci jaamam bii di sa kër mi nga xam ne ndeysaanam moo doon ñaan doom gannaaw bi mu gisee tabaarakallaahu saydatuna maryama mi yaayam jur ko di xanatu bintu faqut te moom mii tamit ishaa bintu faqut a ko jur maryama nekk foofa mu yaree ko ca ca xurfa ba léppam di ko fekk si ki ñam dan koy laaj ne anee la ki haza foo jëlee lile muy tekke ne ku yore doom muy jànq bu la indilee loo ko jëndul war koo laaj foo ko jëlee muy montor mbaa muy portable waaye bàyyi ko ca noonu sa portable bi rafet na rek mën naa am ay farama ko ko may dana dem bañ la fi musiba moo xam ne doo xam foo koy waxee ji mu ne ko nag foo ko jëlee mu ne ay yàlla min indillah mu ne yàlla mii di la may furwi bii ci jamono juhut jamonoom furweem noor ci jamonooy nawet furmee na fur furwee nawet ci jamonooy noor lottu ci may ma doom foofa rek la soppee mu ñaan yàlla doom ndax nag mbokk nawle la yëg nga ne nag màgget na waaye mu ñaan ndax ni daa buñ ko daan wax mooy woote ca kaw waaye làmmeñ wa moom moo tudd nànk waaye xol ba moom ca kaw lay tuttu ñaan gi tamit guddi la ko def sori na da ko yeelu bu ko dana danoon ragal doomi bàyyi taxam yi dégg ko te kon ñu sàkkal ko pexe ndax ñoom yàkkamte woon nañ mu dee ñu donn ko ba lim tàmbali woon liggéey ñu yàq ko bu déggee kon mu leen di ñaan ndono bu wuuteeg ñoom ñu sàkkal ko pexe moo tax nag mu def ni daa an xafiyan léegi tamit ma ngay wax sama sama sama yax yi dafa doxadi ñu ne lenn ci yax yi la ca namm ñu ne yax yëpp a doxadi ñu ne ah kay lenn la ndax nit mën naa màgget te du tax yaxam yëpp bokk màgget kon alance mu lenn ci sama yax yi sama bopp bi tamit mi ngi nii wisaaroo weex tàll ak bi jaaw waaye yow yàlla yàgg naa laa tàllal loxo di la ñaan te musu maa sooy kon walam akun bi du'aika rabbi shaqiyan ah la ko tax di ñaan wax na ko jàngee nañ si ni ñuy ñaanee nit ki bala ngaa ñaan danga ngaa war a toroxlu wan sag doxadi Sakariya dafa njëkkee wan a toroxlu rabbi ni wahana al-azmu minni wastaala ra'su shayban ñaareel bi war ngaa kañ ki ngay ñaan ndax yàgg nga koo ñaan mu lay may kon ne yow yàlla musuma laa tàllal loxo lu du ba defal nga ma ci tàllal lal naa la sama loxo loxoy jàq jubluwuma ko kenn ku dul yow yàlla boo ma sooyal kon tamit ki ngay ñaan gannaaw bi nga ko toroxloo da nga ko war a bàkk walam akum bi du'aika rabbi shaqiyan war nga koo jàmbatu li ne ci yow muy aw naqar wu tegu sa kaw nga bëgg koo teggi wala nga saali ci teraanga joo xam ne danga bëgg mu ñëw moom nag dafa bëgg a teggi lu tegu ci kaw moo tax mu ne inni wa inni xiftul mawaliya min waraa yi wa kaanat imraati aaqiran mu ne tamit tamit mam pare ba def yi yëpp ma ngay wane nañuy ñaanee fa habli min ladunka waliyan kon ñaan ñaar la sooy ñaan fekk da ngay xëcci la ngay xëcc danga nga koo war a tudd gis nga moom xëcc na tudd doom ja tudd na sax nam war a mel waliyan yarisu ni wa yarisu min ali yaqub su fekkoon nag lu nekk ci sa kaw sa jëmm la ci jafe-jafe ci naqar ci yërëdi jërul ngay tudd waxal ne yow yàlla tegu sama kaw xam nga ko yaa ma ko teg kenn mënu ko teg ku dul yow teggil ma ko waa jërul ngay tudd loola moo tax yonentu yàlla ayuba ba muy ñaan dafa ne rabbi masani ya duru wa anta arhamu rahimina duru bana waxul lan la kon njaboot gu bon moom ngay ñaan moom nga bëgg ñi baax yow yàlla xam nga ni sama njaboot mel ma damaa bëgg nga melal leen ni ma neexee jërul ngay tudd seen bon gaag seen sàcc gaag seen bere geew ga feebar nekk ci yow ne la yàlla nekk sama kaw xam nga ko li may yëg sama yaram xam nga ko kenn tegu ma ko ku dul yow yàlla nga ma ko teggil jërul ngay tudd loola waaye nag booy xëcc tuddal ni nga ko bëggee dama bëgg doom ju ju ju am xam ju bari wërsëg bu gudd fan bu nekk waliyu yàlla nangam ak nangam loo xam ci loo mën a jàmbatu jàmbatu xam ne boo ko waxee rek yàlla def ko defal loola yàlla ne ko yaa Sakariya innaa nubashiruka doom ak mbégte dañoo taqoo ku ko am mbég moo tax yàlla fu mu tuddee doom fa koy taqalee mbégte wa basharnaahu bi ishaqa wa ida bushira ahaduhum bil untha yaa zakariya innaa nubashiruka ñoo mu ne ko tamit danaa la may doom góor lay doon bu juddoo yaxyaa lay tudd tuddee nañ ko yaxyaa ndax ci moom la yàlla dundalee ruxumu yaayam ga tuddee nañ ko yaxyaa ndax ci moom la yàlla yàllay dundalee diine ja ci yàlla moom lay dundalee ak mbaax ci ak jamonoom moo tax lii lépp ñu tuddee ko yaxya yëpp làmboo na ko moo tax ñu tuddee ko yaxya su ko defee kon nag yaxya ngoog kenn musu ko tudd lam naj'al lahu kenn musu ko tudd sunu lu yaxya ñu ne nag saarata mi nga xam ne moo doon soxna si yonent yàlla ibrahim turam moo doon asaaratu ci luxatu abraan mooy tekki jigéen gudul am doom ñi wàññi tur wa nag jibril ñëw ne ko sa soxna si léegi tudd asaara mais saaratu la tudd mu ne sama tur yi wàññeeku na benn xaraf mu ne ko sa xaraf woowu ñuy wàññi ci danañ ko fayee sëb sëb mooy tey yaxyaa yaxyaa turam dëgg moo doon xayu ji firi dund ñu jël yaa dolli ko ci muy yaxya mu ne loolu mooy cosaan la su ko defee nag yaxya ngoog ak li ko yàlla defal judd na nag léegi ñetti xar rekk lay xam yàlla jox ko téere muy tawreet moo tax mu ne yaa yaxya e yow yaxya xus na nga jàpp alkitaaba téere ba bi quwatin ci farlu bi quwatin ci takkaayu waa tey naaw jox nañ ko alxukumu nubuwa sabiyan mbir mu muy nekk di xale ñetti xan rek la xam booba waxanaa nan nekk na di yërmande ñeel nit ñi min la du naagu bàyyi koo fa ñun wasakaata nekk na di ab sarax ñeexal leen wakaana nekkoon tamit taqiyan di ko ragal yàlla moom dund na ba génn àdduna mosta mooy yàlla mosu ko yittewoo sax wa nekkoon na tamit baran di koy rafetal di waal day ñaari waajuram rafetal say waajur dafa baax ba yàlla fa koy taggee yonantu yi gis nga ko insa wa baran bi yi kii wa baran bi waalidayhi walam yàkku nekkutoon jabbaaran di ko mbëru asiyan ku daan mooy boromam déeréet wa salaamun jàmm yàlla alayhi nekk na ci moom yow ma wul da bis boobu juréef na ko wa yow ma yemuutu ak bis boobu dana dee wa yow ma yubxasu ak bis boobu def na dekkil ko xayyan muy mbir mu muy aji dund xaalul mu akkat la waaye kuñ dekki rek da dund kon yaxyaa ngoog ñetti bis la tudd ci moom mooy ñetti bis yi gën a tiis ci bisu doomu aadama bisab judd bisab dee bisab dekki di ñetti bis yëpp ñoom rek la alquran tudd sax waaye ñetti bis yi ñoo waral bis ca des ñetti yi yëpp. àdduna ak àllaaxira ñetti bis yi tamit benn bis rek moo ko moo ko ëmb mooy bisab juddu yow ma wul ndax ku judduwut doo dee ku deewut doo dekki kon xaqiiqatan ñetti bis la tudd rek far am mooy bisab juddu ku juddu da ngoog jox nañ ko téere ci ak nubuwatu moom moo ko ci am ak yonent yàlla Isa ñoom ñaar ci seen ak ndaw ci la leen yàlla jox bu nubuwatu ñiy daagoo ak moom su ko defee nag gannaaw yonent yàlla yaxyaa yàlla tagg na ko ci baaxe ñaari waajuram kon ku bëgg a tekki ëllëg na nga fonk say waajur bu leen xemalee kenn ndax yonent bi toog na benn saxaabi yu ñëw tàgg ko ci jihaad mu ne ko ndax sa ñaari waajur kenn ki mu ne ko ñoom ñaar ñëpp ngay dund mu ko demal fa fii ma fa fa jaahid demal nga jihaad ci ñoom ñaar yonentu nee na ngërmande yàlla dafa lëkkoo ngërmande waajur bu nga bu waajur ne waaw rek yàlla ne waaw bu waajur ne déedéet rek yàlla ne déedéet kon nañ fexe suñu waajur yi ne waaw moom yaxyaa kadoo bi yërmande bi yàlla la woon ñeel ay jaar ay moromam ñu ne nag ya ya Sakariya moo ñaanoon mu nekk ndonoom. te ñu ne yaxyaa moo njëkk a génn àdduna Sakariyaa mais jalaal mu ne loola wérut li gën a wér yaxyaa dund na gannaaw Sakariyaa kon Sakariyaa ñaari ñaanam yàlla nangu na ko nangul na ko may may ko doom nangul na ko doom ju ko fi mujj donn ko su ko defee nag ñi jàpp ne dafa génn àdduna duhut ne loo ñaan yàlla yàlla may la ko di yonent bi ñaanoon na yàlla yàlla juróom-benn ñaan yàlla nangu ñett ya delloo ko ñett ya yonentu yàlla Ibrahima ñaan na yàlla yàlla delloo ko ñàkk koo nangu su ko defee tamit Moussa ñaan na yàlla mu ñàkk koo nangu Sakariya tamit fekkoon dafa ñaan yàlla nangul ko genn wàll ga ñàkk koo nangul genn wàll ga ndax ñaan ci coobare yàlla la xaju mooy def bu ko neexee mu nangu bu ko neexee nangu man na nangu ga nag mën naa nekk ci neneen mais mën naa wuuteeg la nga bëgg mu defal la ko ndax yow boo ñaan li nga bëgg rek nga xam yàlla moom buy mayee li gën la la la lay defal. moo tax bul toogati ñaan ñaan naa ba bëgg a dee gisuma dara gàtt xam-xam la mënoon nga fee ñaan ñaan wërsëg yàlla xam ne boo ko xamee léegi nga dee mu soppi ko fan boo ko xamee léegi nga di mu soppil la ko ak wér mbaa boo ko xamee léegi nga def ci lu bon dem safara mu soppil la ko ak yiw ak mbaax kon bu kenn taxawati ne maa ñaan yàlla waaye nangu wut kooku gàtt xam-xam la ma ngay dugg ci ti yàlla maanaam Isa ak yaayam di sayyidatuna Maryama wazkur fàttalikul fil kitaabi ci téere bi di alquran mariyama xibaaru saydatuna maryama idan tabasat ba nga xamee ne dafa beru min ahliha ci ñañam ña makaanan ci place sharqiyan bay aji penku ci wàllu këram fa taxasat jàpp na min dunihim fa leen xiis xijaaban kiiraay maanaam fa taxasat yoor na min dunihim xiis leen xijaaban kiiraay ba mënuñ koo gis booba fekk dafa yore reegal dem di sangu ji di war a fóot ay yéreem mu dem nag nëbbu foo xam ne kenn gisu ko ba ko defee ba set ba sangu rek ba solu ca saasa fa arsalnaa la ñuy hebal ilayha jëm ca moom ruuxanaa suñ jibril mi fata masala mu nataalu lahaa ñeel ko gannaaw bam mu solee yërëm ya mu nataalu ba basaran di sa sawiyan bu mat sëkk ci bind xamee meloo doomu aadama comme doomu aadama lay ñëwal dafay sol mbubam doomu aadama qaalat sayyidatuna maryama ne ko nii naka man a'uuzu maa ngi muslu bi rahmaani ci yàlla min ka ci yow in kunta boo nekkee taqiyan di ko ragal yàlla ñenn ñene taqiyu ab jaamab yàlla la woon ki gi jamono ku baax a baax mu ne ko fekkee yaay taqiyu maa ngi muslu yàlla ci yow waaye li gën a wér taqiyan di boo nekkee di ko ragal yàlla rek ismu faa'il la su fekkee daal taqiyu nga maa ngi muslu yàlla ci yow ndax ñett fi ne soo nekkee ab ab ab kàccoor yow moom ki ngay ragal mooy buur. soo nekkee am naa fiq nit ñi ngay ragal boo nekkee ku ragal yàlla yàlla ngay ragal te yow nag boo ragalee yàlla kon maa ngi muslu yàlla ci yow bu ma jege kaala jibril ne ko innama ana daal naka man rasulu rabbika ndawi sa borom laa innama ana déet naka man rasulu rabbika lu dul may sa ndawi borom ñëw naa li yahaba ngir na may lakka ñaala xulaaman doom sakiyan bu sel ci nubuwa qaalat sayyidatuna maryama ne annee yakkoon naka lay nekke lii di ma ñaal xulaamun doom walam yem sas nii te jonjooxut ak man ci sëy basharun mbindéef walam akkuta nekkuma ba xëyan di njaalokat man duguma néegam sëy te duguma njaalokat fu may jëlee doom te doom ñaar yi rek lañ ko mën a jëlee benn ngay njaalo yàkkamti mbaa nga am jëkkër door ko xam kaala su ko defee nag mu nekkoo mbir mi kazaliki noonu la demee de dana la may doom ci lu duhut baay xaala su ko defee wax na rabbu ki borom si ne moom may la doom ci lu duhut bàyyi àll yi ci man xëy lu jàppandi la jibril jege si ko rek wal ko ca saasa rek mu ëmb yàlla ne def nañ ko wala naj aloo ngir ñu def ko aayatan muy kaawteef li naa sa ñeel nit ñi buutal sama kàttan wa rahmatan muy yërmande mi naagu tukkee ko ci ñun wa kaana nekk na bind ga amran di mbir maqdiyan di buñ dogal kenn dara mënu ko tere xam fa xamalatu ëmb na ko ca saasa fan tabasat muy mu randu bihi ak moom makaanan ci place xasiyan bu sori fa ajaaha yóoruloo na ko almaxaadu métatu matuga ilaa gisi naxlata jëm ca datt ak tàndarma gu waw ga xaalat su ko defee nag xaalat mu ne yàlla it a ne xellanti woon na man mittu ma dee qabla haza njëkk lii bu ko defee nag qabla haza njëkk mbir mi le wa ma nekk na seen di lëf man seen ba de buñ fàtte man seen di ku ñu bàyyi fa naa daa xoo ko jibril ko xoo min taxtihaa ceroonam ne ko an laa taxsani wala an naka lay mbir tey mbir laa taxsani bul jàq xad jaala def na rabbika borom sa taxtiki saroon sariyan dex woowu si na nga gësam illéeki jëm ci yow bi gifi la ti dàtt ak tàndarma gi su ko defee boo ko defee rek te saaqat dana root su ko defee dana rotal rutaban tàndarma ju tooy jënni yan boo xam ne xéwén na pour ñu witti ko waaw waaw fa kulli na nga lekk xital na ma ju tooy gi ndax da ngaa xam doom bees wasra bi na nga naan ci deex gi wa qari na nga sedd ay nan ci xol kontaanal fa immaa tarayinna su fekkee gis nga ñu ne maagi dafa dollee ko in tarayin rek waaye mu jël maagi def ko ci jël in nga a maanaam idd xam ko ca soo gisee mu ne basari ci mindee fi ahadan kenn fa quuli wax ko rek ne ko indi ka man nafartu misaal naa li rahmaani ñeel yàlla saw ma noppi sama kuddu ràccul wax fala nu kallima du ma wax ak yow ma tey insan maanaam insiyan benn xeetu nit du ma wax fa atat dikkal na bihi a xale ba am ñu ne baa di la bi maanaam maa fa atan andi na bihi ànd ak xale bi xaw maa nitam na taxmiluhu mbir moomu ma ngi koy boot xaaloo nite ñu ne ko yaa Maryamu hee yow Maryama laqad jiit sa dëgg-dëgg andi nga shay an mbir fari yan mu màgg mooy am doom ci lu jëkkër yaa waxta Haaruna hee yow mbokkam Haaruna mi dinaa la wax Haaruna moomu ñu ne ku baax la woon nga xam ne keroog ba mu génnee àdduna rek ñeen fukki junne ci ay turandooram topp nañ dàtt ga bokkut ak ñeneen ña ñeen na ñeneen na male piir la mu njëkk ma muy Haaruna Muusa ma maa kaana nekkutoon abuki sa baay imraa sawin di can su bon wa maa kaana nekkutoon ummi ki sa yaay baqiyan dim njaalokat foo jëlee mbon donnoo ko ci wàllu néegu ndey du ki néegu baay fa asaarat mu junji ilay jëm ci xale ba ne laaj leen ko kaaloo ñoo mbooloo ma ne ko kay fa nu kallimu naka la ñuy waxee man kaana ku nekk fil mahdi ci laytaay sabiyan mbir muy nekk di xale xaala xale ba wax na moom yonentu yàlla Isa ne inni naka man ñii ngeen ni laaj Abdullahi jaamab yàlla laaj bu ma kenn askanati ne maa yàlla aataa ni jox na ma alkitaaba téere kon na ñu ñëpp ñu dem jàngi wa jaal ni def na ma nabiyan may ab yonentu na ma ñëpp roy wa jaal ni def na ma mubaarakan may kuñ barkeel na ma ñëpp topp ay na maa kuntu fu ma mën nekk nag su ko defee waaw saani dénk na ma bi salaati julli nañ ci taxaw wa sakaati ak joxe asaka maa dumtu fekk sax naa xay yan di aji dund wa dénk na ma baran may aji baaxe bi wàlidati sama yaay comme aw ma bàyyi wala mi jaal nii defun ma jabbaaran may ku mbëru kuy rëy rëylu ah maanaam saq yan di kuy ku texe di kuy kuy kuy kuy dëngee uh, waajuram mbaa muy dëngee yàlla wasalaamu jàmm jooja ñu ñaanoon ci yonentu yàlla mu maanaam yaxyaa algi ali ahdiyu la xaleya yàlla na nekk ci man yow ma wulittu bis boobu juréef na ma wa yow ma amuutu ak bis boobu danaa dee wa yow ma ubxasu ak bis boobu def na dekkil ma xayyan mbir mooy aji dund zaalika loolu de eh, maanaam eh, isa bnu mariama zaalika kooku la isa bnu mariama mooy isa mi dooy mariama xawlul xaqi mu nekk di waxi dëgg li ma leen ci wax mooy waxi dëgg ji de àll si ji nga xam ne yamturu na ñu ngi sikk fii ca moom di ca wax loo xam ne dara amu ca su ko defee nag maa kaana yàlla an yattaxisa muy jàpp min waladin ci doom subhaanahu tudd ma sellam koo xam ne isa qadaa bu na mee dogal amran mbir fa innamaa yaqul daal day wax loo ñëw ko ne rek fa yakuunu mu nekk da mën naa nekk sax su lu dul loola wa inna laa naka yàlla rabbi mooy sama borom wa rabbukum mooy seen borom fa'buduuhu na ngeen koy wéetal haasa lii ñu tudd siraatun mooy yoon mustaqim wu kocci ànd ak lii lépp faxtalafa wuutee na al ahsaabu kuréel ya di yàqoobi yaag nas kon woo ca safar la si nga ne xam ne kafaroo weddi nañ min mashhadi yawmin ci teewaayi bis xasimin gu màgg asma asmi bihim lëf lu màgg déggaloo na leen wa absir lëf lu màgg gisloo na leen maanaam maa asmaahum wa absaruhum rek yow ma yaatu na naa bis ba nga xam ne dañu dikkal laakin li fi nekk zalimuna tooñkat ya al yawma tey fi daal ñu sànkute mu binin kay aji biir de wa anfirhum nang leen nang leen nang leen ragalloo yow yonentu bi yéeféri ya yawmal xasrati bi sa perte ba is xuddee boo xam ne xatteef na al amru mbir ma fekk waxu mbir moomu ñoom fii ci àdduna fii xasrati ñu ngi ci sàggante waxum fekk ñoom laa yunoon duñ gëm mukk innaa naka ñun yàlla nax nu ñun laa wax naris ñooy doon al arda suuf wa man alayha ak mboolem ñi ca nekk ñoo xam xel ak ñoo xamul na dellu leen ñoom ñëpp ilay de gis nga kon aayaat yooyu yëpp yàlla koy wax di ci nettali xisaab sayidatuna maryama nii yàlla may doom te fekk amul jëkkër xisaab yonentu yàlla Isaa mi yàlla may mu juddu te amul baay yàlla nag mooy wane kartanam ci nu ne bind na ko amul ndey amul baay muy suñ maam aadama bind ko am baay te amul ndey muy suñu suñu suñu maam Sayyidatuna Hawa bind ko am ndey am baay muy ñeneen nit kon nag kenn ay des ku war a am yaay te du am baay mu mottalee kenn ci desoon ci Sayyiduna Isa wane ne kàrta nag yàlla ga talewut ci dara lu xel daj ci bëgg ko rek moom mën na ko gis nga sayyidatuna Maryama jigéen gu tedd la mooy génn jigéen gi alquran tudd alquran ba alquran jeex génn jigéen la tudd muy sayyidatuna Maryama tudd ko lu mat fanweeri yoon ak ñett ci téere bi lu mu ca jublu bokk na ca dàq li ñuy wax ne Maryama soxna yàlla la ndax dafa bokk ci aaday arab seen sang ya duñ tudd seen soxna ci mbooloo. seeni jaam la ñuy tudd kon kilifa gu doy ni yàlla nag bu tuddee Mariama ci téeréem bi lim bu toll noona dafay tekki ne li ngeen koy wax dara amu ci te buñ xamoon sax li baata Mariamay tekki dañ xam ne mënta nekk soxnaay yàlla mënta nekk tamit di yàlla jaamab yàlla dong la baat biy tekki Mariam mooy al-aabidatu kon jaamukatam yàlla la jaamukat jaamukatu yàlla la doomam ji Isaa bam ñëwee lim di ko wax inni abdullahi ataaniyal kitaaba su ko defee kon yooyu yëpp yàlla leen cay xëy te yëguñu ko Maryama jëmmam ji jëmm jigéen la waaye melokaano melokaanoo góor la moo ta yàlla di ko woo ni muy wooyee góor ñi ci alquran yaa Muusa gis nga ko fii tamit yaa Maryam uqnutii li rabbiki wasjudi warka'i waxut maa raaki'aat waaye dafa ne maa raaki'iin wa kaanat min alqaanitiina waxut min alqaanitaati yile yëpp day tekki fooram ga sayyidatuna Maryama nag fekk dundoon ma ci fa boobu nga xam ne Sakariya moo ko fa yar ca jàkka ja surtout Ala Imran moo ci waxoon lu doy fukki at ak ñett mosta gis góor ba demee nag ba am fukki at ak ñett commencé gis reegal ci la dem nag di fóoti war a sangu ji bu war a teqalikoog la ko takk ba mu demee ba set rek ci la Jibril yàlla solal ko melokaanoo xalil bu góor. mu daw di ko wut si moom tamit mu daw di ko moytu fekkee ragal nga yàlla sori ma mu ne ko man sa ndawal borom laa foofa nag la door a teeyee rek mu jege ko roof ko lam koy roof nag mu doon lam doon ñii ne ëmb ba ca saasa la ak imbi ba ñenn ña ne distance ba tiire na juróom-ñeenti weer li gën a wér nag faafaa la ko tartibee tawal faali tartibi bitti saali wa sumal tartibi bin fi saali moo tax ëmb ba daal ak ëmbi ga lu jege la loolu na yàlla misaal na ko ci ganaar yi tey léegi tey bu defee ganaar goo xam ne ni ñeent fukki fan rek mu nekk ponkalam ganaar ñetti kilo nga jël di lekk ah dëgg-dëgg de moo tax léegi tamit nit ñi ci ëpp dañoo mel ni ganaar yi rek ganaar yi ganaar ganaar yi de wéruñu ñemewuñ coono waaye nit yi léegi tamit wérutuñ ñemeetuñ coono koo ci gis ma nga ponkal jëmmu ja rafet waaye fekk na wér nekkatu fa. li ñuy lekk tamit jël loo xamee ne ni tey boo ko bàyyi woon mu fanaan mbal mbala mu yendu nëpp ngay dugal ci frigidaire bi ñeent fukki fan yow fu mën a lekkatoo looy tekk looy lekk lu tëree nëb ngay lekk fu mu ne nii la tëree nëb nag boo ko lekkee boo moytuwul sa biir bi lay nëbee moo tax tey xeeti jàngoor yi bon yëpp ñu ñuy soqee ko ci li ñuy lekk. Jibril ñëwal na ko fii dafa ne li li yëhëba am na lu jàng li yëhëba lakk ngir naa la may ci kat na sama borom su ko defee nag def na ko pikiir ba mu doon lam doon. ma ngay nag moom xam na ne lim am njaaloo mayut ko ko ci yàlla bayee ko waaye mu gis mu ne yaa layta nii mittu qabla haasa dafa yëg ne tey ñu bëri dem safara ci man dañ wax lu ñu war ta wax ci man ba dem ke safara te yéenuwuma kenn dem safara su woon na ma dee ndax kenn du wax ci man lu bon bay dem safara ñu ne nag lu tax ba mu demee ba am doom yàlla sës ko ca ëkk ga gu wow ëkk ga tooy xami xob xami meññant ñor ca saasa mu mën a witt ca doom ya yàlla koy wan miracle ne ko maa la fekk amuloo jëkkër ma may la doom man mi man loola wan naa la ko ci ëkk gu tooy gii gu waw gii ma tooyal ko léegi meññal ko léegi mu ñor léegi te xam nga tàndarma ni mën a yàggee ci màgg ak na muy ñoree kon waxu si illéegi bi gis yi naax la ti ñaareel tamit ku xam ne dafa lekk dafa dafa indi doomam am doom lekk lu tooy day baax ci moom loolu yonent bi santaane woon moo tax mu ne kon lekkal dana root te saqat aleyka rutaban janiyan mu jël ñaar wa kulli wasrabi fa kulli wasrabi lekk moo gën a ëpp xaajowoo ci naan moom la ñuy jiital bu paree nga door a naan moo tax mu jiital lekk ci naan fa kulli wasrabi su boobaa nag soo fi lekkee ba pare jot sa bopp ba pare ku jëwatee bëgg ràcc wax bëgg xuloog yow ne ko sama kudd ràccut wax ndax xuloo foo ko dégg ñaar a ko seq waaye bu nit ñi wax nga noppi bu yàggee dañ noppi waaye wax bu bari rek dañ koo séq mu jeex kon nag ku la man di wax rek inni nasartu saw man ay imsaakan anil kalaami mu jeex bu ko defee nag mu nekk ca loola boot na ko wax ja bëri yaa waxta Haaruna Haaruna mi mbokkam la di ku baax niroog moom ci fegu araab day waxee loola yaa yow mbokkam arab yi Haaruna mii ci jamonoy Maryama la góor gu baax la woon bi mu génnee àdduna rek ñeenti junne turandooram ñoo ko ñoo nekkoon ci gannaawam di ko rob bi boolewut ak ma neen mbooloo ma ñeen na ngeen ne Haaruna Muusaa la ba tey boo ko dàqee ci mbokkam la ba tey ñoo bokk benn famille waaye ñu ngi ko bëgg a xas ne ko doon noo mbon ci sa néegu ndey doon noo mbon ci sa néegu baay foo jëlee mbon yaa uxta Haaruna maa kaana abuuki imra asawin kon boo bokkee ci néeg bu baax ci meen ak ci gaño war ngaa fexe sàmm sa bopp bul bul tilimal sa néeg ba bu ko yàq ndax loolu lañ sàmm nii Ibrahima moom lañ sàmm nii kon euh, Sayyidatuna Maryama wax ko ko kon yooyu yëpp maa ngi ñëw ak yow nag ci yonentu yàlla Ibrahima moom lay wax si nii moo cay tegu maa ngi ñëw ak yow nag ci yonentu yàlla Ibrahima moom lay wax si nii moo cay tegu lu ca mën a am Maryama bi mu amee Isa wax na mu nekk liir bu wax ci ndaw moo tax moo setal yaayam ñett dañ leen a yàqoon seen der yàlla setal leen yàqoon nañ deru yonentu yàlla yusufa yàlla setal ko ci xaleel boo xam ne ma ngi ca biir soom ci wa shahida shahidun min ahliha ñu yàq deru yonentu yàlla Muusa ci wax lañ wax ca moom yàlla seetal ko ci fa baraahu laahu mimma qaalu wa kaana inda allaahi wajihan wajihan ñu yàq deeru saydatuna Aïcha yàlla seetal ko ci suratu nur fukki aaya ak juróom-ñaar ñu yàq deeru saydatuna Maryama yàlla seetal ko ci làmmiñu doomam inni abdullahi ataaniya alkitaaba wa jaalani nabiyan wa jaalani mubarakan aynama kuntu mu bokk ci liir ye wax ci seen ak ndaw comme ni liir ab asxaabul uxdud ba ah, fu nawaas mu bon mu ba muy lakk nit ña ne ko weddiwut Iisaa weddi yàlla ma lakk la ku ko weddi ma musal la di jël nit ñay dugal ba bëgg dugal benn xale boo xam ne yaayam a ngi ko boot moo ngi yaayam bëgg leen a lakk xale ba yaay ja bëgg a rikkile yaay doom ja wax ne ko yaay dugal ci safara wi boo fi dawee safara wi xam na safara wu lay xaar ca kanam te duutut fayati bañ cee dugg yàlla leewu leen yëguñ sax tàngoor wax booba xale wax na am na xale bu wax ruuxul bayaan nay wax li ko romb rek benn buur ñu escorté ko motaar ya dar ko benn jigéen nag sama doom ji yàlla mel nii doom ji ne ko mukk yàlla bu mu mel ni kii mu doxaat romb ab sàcc ña ngi koy dóor ak a daw yàlla na yàlla musal sama doom gi ci kii mu ne yàlla naa mel ni kii mu firil ko ko ne ko kii ab wëyu la teraanga àdduna la am bu dee dem safara kii wëlliyu la dafa nëbboo lii ñu ne sàcc la buy dee di dem aljana moo tax yàlla daal wa maa ya'lamu junuuda rabbika illaa huwa kon bàyyi na wax ja ma ngi ca yonantu yàlla ibrahima gannaaw bam ne faxtalafa laxsaabu min baynihim kuréel yi nag ñii dañ ne ci nasaraan yi dañ ne Iisaa mooy yàlla ñii ne Iisaa doomi yàlla la ñii ne maryama yàlla la Iisaa yàlla la yàlla yàlla la ñii yaqubiya ñii nasturiya ñii malkaaniya ñii islaamiya moo tax kon ñoom ñi ne ñëpp wuute nañ ci mbiram Isa la ca la wér nag mooy la ca jullit ñi wax te mooy li alquran wax rek mu jeex waaye xéemal seen ak dégg ak seen gis ga keroog bu ñu ma xuysee seen cër ya seen jëf ya yow yonent bi nang leen xupp ci bisa perte ba cër la ci turu bis penc yi euh, bis la bu bëri tur dañ ko tuddee yowmu diin yowmul jasaa yowmul xisaab yowmul xaaqa yowmul qaaria yowmul mawuud yowmul xasrati li la yëpp ca turam ya la su ko defee nag lii la aayaat yooyu ma mbëstal maa ngi ca Ibrahima waskur fàttalikul fil kitaabi ci téere bi di alquran yàllaay gàmmal yonantu bi fàttaliku ci Ibrahima Ibrahima Ibrahima xibaaru Ibrahima innahu naka moom kaana nekkoon na siddiqan di dëggoo kon nabiyan dib yonantu watlikul is qaala ba mu waxee li abi ñeexal bàyyi taxam ba di asara ne ko yaa abati yow sama baay li ma taxbul tax ngay jaamu ma laa yasma loo xam ne du dégg wala yub subta du gis wala yux nii mën ta jañ xan ka wala say an dara mënul laa bijjal njëriñ mënul laa jañal lor yaa abati yow sama baay indi naka man xat jaa nii dikkal na ma min al ilmi ci xam-xam maalam yaatika loo xam ne dikkalul la ak li may mag mag ci zahir fattabi'ani kon topp ma ahdika ma gindi la siratan ci yoon saw yéen wu jub kocci yaa abati yow sama baay laa taabudi bul jaamu seytaani seytaani ki topp ko inna seytaan naka seytaane kaana naka jekk asiyan ku bërik mooy la li rahmaani ñeel yàlla yaa abati yow sama baay inni naka man axaafu damaa ragal an yamassaka ba jot la azabun mbugal mina rahmaani gu bàyyi ko ci yàlla boo tuubut fa takkoona sawa soos da nga mujj li seytaan ñeel seytaane waliyan di aji dimbale ko xaala baaje ne ko araaxibun ndax aji sib nga anta yow an alihati wali suñu yàlla yi yaa ibrahim lem tan la in lem tantahi soo daytalu dima gaaral la arju man naka danaa danaa jamal la danaa dogal la ci ay ci ay ci ay saan wax jur nii nang ma tong maliyan ab diir bu gudd kaala ibrahima ne ko salaamun alayka nañ kitoo jàmm yàlla na nekk ci yow mooy demal ma dem sa astaghfiru nag xal si naa jéggalu làkka ñaan la rabbi sama borom innahu naka moom sama borom kaana naka jekk xafiyan ku baaxe la bee ci man lu ma ko ñaan mu nangul ma de matal na dëxalam ba daan wax ne wax fir li ab yi kon def na ko mu ne ko nag du ma ca xen wa atasilukum danaa leen beru wa maa tad'uuna ak la jaamu min doon laay doot yàlla wa ad'u danaa jaamu rabbi sama borom asa su ko defee allah na amaan na ma ñàkk nekk bi du'aay rabbi ci jaamu gi may jaamu sama borom shaqiyan di cee ku ñàkk sens di cee ku texeadi comme yéen ni ngeen texeadee ci jaamu seen xërëm yi te du leen jëriñ dara fala maatasaluhum ba nga xam ne beru na leen wa maa yaabuduna ak lañ doon jaamu min dunillahi wali si yàlla su ko defee ca la dem gàddaayi ini saahibun ila rabbi sayahdini dem xubsu wahab naa lañ may la lawoo ñeel ko ñaari doom su ko defee ishaqa mooy ishaqa wa yaquba ak sa bu ñu tuddee yaquba wa kullan ñoom ñëpp jaal naa def nañ ko nabiyan mu yonantu wahab naa may nañ lawoo lawum ñaal leen mi rahmat naa suñu yërmande maanaam xalal ju bëri ak i doom wa jaxal naa def nañ la lahum ñaan leen lisaana sidqin tagg wu rafet aliyan mooy aji kawe wa fàttalikul waskur fàttalikul fil kitaabi ci téere ba tey Moussa Moussa innahu naka moom kaan nekkoon na muxlasan di kuñ sellal wa kaan nekkoon rasulan di ndaw nabiyan dib yonantu wa naa day naahu xooxoon nañ ko min jaanibi tuuri sa wàllu doj wa ay man ca nday jooram mooy fa méng Moussa ca nday jooram bu ko defee mu bàyyi ko Madiyana jëm Misra wa qarabnaahu jegel nañ ko na najiyan muy aji diyaaleeg man wahab naa may nañ la woo ñeel ko mi rahmat naa suñu yërmande aqaahu mbokkam ma Haaruna Haaruna laa wax def nañ ko na nabiyan muy ab yonantu yëpp maa leen ko defal kon wax na Ibrahima Ibrahima ngoog mooy bàyyi yonantu yi mooy sadd waayu lépp ci delloo boppam ci yàlla keroog ba nga xamee ni sànn nañ ko ca safara wa mu delloo boppam yàlla ilmuhu bi haali yuxni nii an suali mooy sadduwaayu lépp ci delloo alalam ci yàlla toog naag gàtt yi war koo xaj yaag seen seen téeri oore juróomi téeméeri xaj bu doon léegi gaa yi agressé xaj yi malaaka di ko nattu si rek tudd yàlla mu ne ko tudd nga sama xarit genn walla xalal gi jox naa le ko boo ko ñaareelee ma jox la li des boo ko ñetteelee ma soppeeku sàmm sàmmal la ko kon ko summeeku na ci xalalam ba dese yàlla mooy saddukaayu lépp ci summeeku ci njabootam ba dese yàlla delloo ko yàlla ko xam lu dul benn doom danga koy xam xam nga téeméeri xat ak ñaar fukk sama borom digal la nga ray ko nga nangu ko ray ci maanaam inni ara fil indi inni asbahuka loola fa la mën a xem ba yàlla ne koo fa day na bi sibin azim kon Ibrahima nit ku baax la tagg wu rafet yàlla defal na ko ko moo ko ñaanoon wajaxal li lisaana sidqin fil axirina moo tax yahud yi la ñuy bon bon bëgg nañ Ibrahima ba ne la. nasaraan yi la ñu mën a mën a bokkaale bëgg nañ Ibrahima ba ne ba ne nasaraan la musrikuuna yi noona yàlla xañ leen ko ñoom ñett jox mi ko ne maa kaana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan wala walakin kaana hanifan musliman wa maa kaana minal musrikiina ñoo ko moom kon. bàyyi taxam bi la waaye du baayam ndax arab ak olof ñoo yem usloob foofa arab bu la waxee foo ma say baay jaar ci tur wa jurul la. olof tamit bu la wooyee demal xool ma sa baay jaar ca tur wa man ne kam jaay sa tur wa jurul la waaye bu ne kala jur la fa wax na xool ma sa baay rek xem ca waaye ba mu ne li abihi asara rek dañ cee déggee ne juru ko kenn du seexu tijaan su ko defee nag mu ne yéen a ngi jaamu lu déggut gisut manta bijji njariñ manta jañ lor li muy jariñ topp ma donte yaa ma jur ma gindi la ci yoon wu jub ba fi seytaane ku mën a noonu nit la bàyyi ja nag jombalu ak rëy topp ko ne ko danaa la sànni doj mu ne ko bu yeboo kon demal ma dem waaye duma ma la bàyyi loxoy neen danaa la jégalul yàlla sama borom ku nangu ñaan la ku nangu sama ñaan la ci la nekk ñaan bu mujj nag yàlla xamal ko ne ko sa bàyyi ji ci kéeféer lay dee mënoo ca dara tabarra am minhu na ci la Ibrahima door koo baax waaye gis nga mu beru leen ku bon soo àndeeg moom donte la muy def àndu leen ci tamit mënoo mukki ca mbonom ga moo tax mu ne wa a'tasilukum waaye mu ñëwee def lu bon ngay lekk ndoor ak ñoom tëdd ndoor ak ñoom fanaanu ndoor ak ñoom fat leen ñuy nekk di mooy yàlla wallahi bu yaram yàlla ba ñëwee doo ca mucc loo baax baax boo jaxasoo ku bon mbugalam yàlla dal ci sa kaw seetal ma yonentu yàlla musaa li muy baax ak Haaruna keroog bañ jaxasoo ak ñu bon ñooña li nitam ñu jabaa bi rataya moo tax tamit mbugal ma dal seen kaw ñeen fukki at ñi gëlëm yatiihuuna fil ardi xanda ku bono leen ko yóbboo soo àndeeg ku baax bu yërmande jay wàcc dara du la ca humpu gis nga ñu bon ñooña bañ a àndeeg Moussa nga na li ñuy baax baax moo tax tamit yërmande ja kenn xëppale wut leen ca yàlla dimbale na leen ñeen fukki xat xamul joxe dépasse ñeen fukki xat buñ bëggee amul amul lëndëm ci guddi gi te amul fay courant leer naññi ñeen fukki xat sa yére yiñ sol tilimut taamut fóot loolu lépp ñu ngi ko jëlee ci xéewal ak ànd ak nit ku baax kon nag yiw yëpp mi ngi ci àndoo xay yëpp ñu ngi ci àndoo kuy ànd àndool ak ku baax yonentu ne mi ngi koy misaale toogandoor ak jaaykat ab parfum bu la tuurut timit ca parfum ba xet ga xeeñ la waaye bu ne àndandoor ak ku bon mi ngi koy misaale xuppkat yooyu di tëgg safara ya di xupp safara ya bu la lakku timit safara wa xëñ ji la mënoo ca dara kon nag nañu wuti àndandoor bu baax te bàyyi fi ñu bon ñi ina tibaax tasriqu tibaax la ibnu baaba waxoon wax na Moussa dana ko gën a leer ci suratu taaha ci wasru fil kitaabi Muusa kenn la ci ulul asmi yi mooy kalimullahi Muusa mile moo doon sàmmal Suayb bu may ko soxna ba muy ñibbi ci la ko yàlla jox nubuwatoog risalatu mu ñaan magam ja Haaruna yàlla def ko ko ñu bokk ñoom ñaar dem ca Firawna ci izhaba ila Firawna innahu taxa loolu dana gën a leer bu ñu yeggee ci taaxa ci kanam tuuti. wazkur fàttalikul fil kitaabi ci téere ba ismaila ismaila innahu naka moom kaana nekkoon na saadiqal waxdi di ko dëggu ci dëxal wa kaana nekkoon rasulan di ndaw nabiyan dib yonantu wa kaana nekkoon yaamuru daan digal ahloo ña ñam ña bisalaat is julli wa joxe asaka wa kaana nekkoon andra bi fa boromam mardiyan di kuñ gërëm waskur fàttalikul fil kitaabi ci téere ba Idrisa innahu naka moom kaana nekkoon na siddiqan di dëggu xàkkoon nabiyyan dib yonantu war a fax naaw yëkkati woon nañ ko makaanan ci place aliyan bu kawe te mooy muy dund yóbbu ko ci ñeenteelu asamaan wala juróom-benneeli asamaan a ulaayka yooyee gaay mubtada la allazina mooy ñi nga xam an'ama xëwé na laahu yàlla alayhim ci ñoom mina nabiyina ci laa moom yonantu yi min sunnati aadama tukkee ko ci njabootar ci ñi nga xam ne xen nañ leen ak doomam ja wa min zuriyati ibrahim ak tukki continué ci njaboota ibrahima ba mooy isa ismail ak ishaqa ak yaquba wa israil ak ci njaboota israil ga ta mooy yaquba njabootam ga nag moussa ak haruna sakariya yahya isa ñëpp ci lañ bokk wa mi man hadayna ak ñi nga xam ne gindi nañ leen wa tabaynaa ñi tànn leen ñooñu nag ñooñ mooy ñooñ nga xam ne mooy xabar ja loolu ngay wax ñii ñëpp mooy man ñooy xam ne hadaynaa gindi nañ leen wa tabaynaa ñi tànn leen ñooñ nag ñooy ñoo xam ne isa tudla ndéem naa leen ñoom ayaatu rahmaan yi aaya yàlla yi xaroo ñu rot su gëna mbir mu ñuy way sujjoot wa bukkiyan mbir mu ñuy way jooy de ngir ragal yàlla waaye dem nañ nag bañ demee fa xalafa wuutu na min baadim seen gannaaw xalfun kuutaay lu bon ñoo xam ne addaaw sànq nañ asalaata julli te mooy yahuud yeeg nasaraan ñoo leen fi wutu seen njaboot lañ wa tabaroo ñu topp shahawaati bànneex yi ci mooy yàlla fa sawfa xaw na xal na ñoo dajee xëy yan xuru ñu tuddee xëyu ci safara xuutaay ba rek picc mi dàq naaw bu ko doon naaw téeméeri junne xat du ca hegg ah ñu ne faw ñëpp mu ne déedéet nag ilaa man taaba lu koo xam ne dafa tuub wa amana mu gëm wa amila mu jëf saalihan farataaki naafila fulaa ko yooyu gaay yadxul dañ tàbbi jannata aljana wala yutlamuuna deefu tooñeef leen shay an dara ba leen di wàññil lu baax luñ def mbaa ngi leen di yokkal lu bon luñ deful janaati laa wax aljanaay sax la tey ja nga xam ne waada dëxal na rahmaanu yàlla xabaadoo jaamam ya bil xay bi mbir mu muy nekk ci faddu ñoom gisuñu ko inna woo naka moom yàlla kaana nekk na wax doo dëxalam ba matti yan di aji dikk dara mënu koo ma laa yasmauna duñ dégg fiya ci aljana lax wan waxi mbóosóor ah duñ fa dégg jenn wax mu ne akay ilaa salaaman maanaam lu dul nuyoo boo xam dafay bàyyi ko ci malaaka ya wala hum aji nekk la ñeexal leen risqum seen wërsëg fiya ci aljana bu ko rotan ci waxtu njël amut sax waasiyan ak ngoon waaye heure bu ne rek ma ngay ñëw waaye mu wax ko ci liñ xam rek waaye loolu sax amut foofa aljana la tii moo ja nga xam ne nuurisu ñu jox ko min xibaat naa su jaam yi man kaana ki nekkoon yan di ko ragal yàlla mu cay dugg yàlla nañ ca dugg kon aljana ay xaaj la aljana ay miraas day am nuurisu moo tax mu wax loola ab jullit bu duggee aljana day jël aljanaam ja ba pare doonnu aljana ay xéeféer ja xéeféer dugg safara doonnu sa jël safaraam wa doonnu xaale sa kër safara ga yow jullit bi am aljaana joo xam ne nag mahdu rahmatillahi moo cay dugal nit am aljaana joo xam ne iktisaab ak fàggu moo la cay dugal boo demee ci ruwul bayaan jël na xeetu aljaana yu bari maanaam ak maanaam yu ci aju ci aljaana yaak benn bu ci nekk ak xeetam yaak li ci aju kon tudd na foofu yonentu yàlla Ismaila taggee ko matal dëhël matal dëhël mënta passé baayam ba koy rendi dafa ne ko yaa abati faal sata tu'maru satajiduni insha allahu ne saabiriin te def na ko mos naa wax ak nit ci matal dëhël mu ne ko toogal fii xaar ma mu toog fa lu man ñetti fan di ko xaar mu ne ko yaa waxoon naa la fi xaar te gisaatuma la ba léegi moo tax matal rendez ci moom la yan nañ koy fexe bi matal dëhël yi waaye léegi rendez-vous moom ñu ne rendez-vous rendez-vous olof la tubaaba man nangam ñàkkal sa bopp fayda yooyu yëpp baaxut Idrissa nag taggee na ko siddiqan nabiyan ku mu ko wax rek yonantul nga xam nga xam nga nubu xam nga risaala war a fax naaw makaanan xale yéen ñu ne moom dañ koy yëkkati fekk ma ngay dund euh, ba mu xegg ci kaw asamaan euh, xisa yu bari boo demee jalaal wax na ko ca waaye yonantu daal moom ba muy gàddaay def miaraaj romb na ko ki ñeenteelu asamaan comme ni mu rombee Yaxya ak Isa ci ñaareelu asamaan Yuusufa ñetteel ba Idrisa ñeenteel Haaruna juróomeel Moussa juróom-benneel Ibrahima juróom-ñaareel bu defee nag boroom xam-xam yi wutee nañ ndax moom fa nekk ci asamaan continué dundam wala dafa génn àdduna li ëpp ci jumhur dañ ne ma ngay dund ba tey dañ ne ñeent ñeent ci yonantu yi ak ci gaay yàlla yi ñi ngi dund ñaar ñi ñi ngi ci suuf mooy Xadir ak Ilias Ilias yonantu la mais Xadir duhul yonantu Cheikh ne la. ñaar ñu nekk ci asamaan mooy Idrissa ak Insa ñu nekk ci asamaan toujours yàlla bu leen wax day appliqué baatam rafaa gis nga Insa bañ waxee dafa ne ba dafa ne ba rafaahu laahu ilayhi gis nga tamit Idrissa dafa ne wa rafaanaahu makaanan aliyyan kon loolu moo tax mu ne wa rafaanaahu makaanan aliyyan wa rafaanaahu makaanan aliyyan nag boo demee ci yéen ci mu fasiroon tamit firé nañ ko ne neen nu wuuteeg noonu tagg wu rafet ko tamit tàggat gi ko yàgg a tàll xalimbaak yeneen ya ca aju xëwee na leen ñu nekkoon ay yonantu di def lu baax rek waaye nag ndeysaanam bañ demee bàyyi nañ fi ak njaboot gu bon loo xam ne lañ doon liggéey lu bëri ñu ngi yàq mu yahuud yi ak nasaraan yi kenn gënu leen maam yàqubaay seen maam waaye kenn gënu leen a xées danguwu ñoo julli kon ku fi doyloo sa mbaax ak maam mbaa nga doyloo sa mbaax ak sëriñ mbaa nga doyloo sa mbaax ak yonantu ba jaamuwoo yàlla bu ko lëggee kenn mënu laa tere dem safara kon nag moo tax mu def xalfun xalfun buñ ko sukkooni bi sukkooni laam rek mooy kuutaay lu bon bokkut ak xalafun xalafun bi fa bi fatxi laam mooy kuutaay lu baax walil xalifati fi ixsaanihi xalafu kon loolu mooy li am solo euh, mu ngoog adaaw salaata wa tabaxu shahawaati fa sawfa yalqawna xayan aw xuur la ci safara safara sax fay muslu ca xuur woowa noona kon a yàlla ngoog ak li ci haju wax naa la ko mu ne tilkal jannatu nuurisu min ibadina ruuxul bayaan mu ne xal jana ay xaaj la am na ñu tuddee jannatul ixtisaas ixtisaasul ilaahiya la goo xam ne yàllaa ko am ñu mu ko def defuñ sax lu tax dugal leen ca mooy aljaana jay dof yee dugg ëllëg ak aljaana yay xale yay dugg ñu mësoo ragut ñooña wax dëgg yàlla defuñ lu tax yàlla jox leen aljana waaye aljana ixtisaas lañ koy tuddee dof yaa cay dugg xale ya ak waa ahlu fitra ñi nga xam ne yàlla yónni wut ci ñoom kenn ndax yàlla du la mbugal lu dul dafa laa yónni mbugal du jiitu ndigal dafa lay digal nga wuuteeg digal mbugal door a ñëw jeneen aljana ja mooy janatu miraas mooy bépp ko xam ne ko fa dugg ci jullit ñi dana am place yu ñu ko doon loo ndax nit ku nekk xam nga kër safara xam ko aljana yow nag boo duggee aljana da ngay am sa kër ak aljana ga donnu aljana yi xéeféer ba xéeféer ba dugg safaraam boole koog sa sa sa kër ak safara ga doonu leen am jannatul amal ja aljana joo xam ne nag sa jëf yu baax yi nga newoon julli yeeg xoor yeeg joxe asaka yeeg yooya nga newoon ba yàlla yërëm la ca duggal la aljana ndax yàlla bam rek bam ne kat wa rahmati wasiat kulla shay'in fa sa aktubuhaa lazina yattaquuna wa yu'tuuna zakaata la ca teg yu mel noonu fa sa aktubuhaa lazina yattaquuna wa yu'tuuna zakaata su baat moo tax Bilaal mos naa yonantu ne ko noo def ba jiitu ma bi ma sabaqtanii ilal man amul fenn fu ma teg sama ndëg maa ngi dégg sa yëngatu sama kanam aa ah, mu ne ko musumaa toj le lu dul ba jàpp naa musumaa jàpp lu dul ba julli naa ñaar rakkaa mu ne ko kon ci loolu nga ko jëlee kooku kon jagleel ak yàlla la bu ko defal. kon aljana yaa ngoog wa ma natanasalu ila bi am rabbika yonantu jibril la ko koy wax fa koo gëj a gis gëj naa laa gis di a jibril man nga maa muñ di ñeen fukki fan gisu mën lu ko waral mu ne ko ñun ci sa ndigalal borom la ñuy wàcc lu ma lay namm namm su ma sa borom waxut naa la seet si du ma la seet si kon nag sama borom moo ma gëj a jox ndigal moo tax nga gëj maa gis moo tax mu ne ko wa ma natanasalu duñ wàcc illaa bi am rabbika loolul sa ndigalal borom sa borom bi nga xamee la woo aji nekk la ñeel ko maa bay na ay dinaa li nekk suñ kanam mooy mbiram àllaaxira wa maa xalfanaa ak nekk suñ gannaaw muy mbiram àdduna wa maa bay na zaalika ak lépp lu dox ci seen loola muy barsaq ba ca saaxa wa maa kaan nekk rabbuka borom sa nasiyan di aji fàtte kenn ndax moom rabbu samaawaati mooy borom juróom-ñaari asamaan wala ardi wa maa baynuma ak nekk seen diggante faabudhu na nga ko jaamu na nga sax dàq ci jaamu ko wastabir na nga muñ li ibaadati jaamu ji nga koy jaamu hal mu ndax da nga xam la woo ñeel ko samiyan ku ñu tuddee yàlla xamut wa yaqul dana wax su ko defee nag al insaanu xéeféer bi weddi dekki mel ni ubay ibnu xalaf ak wal dum nu muxiira naan a iza mitna a iza mitu ndax su ma dee la sawfa uxraju xal si na maa génneef xayyan mbir mu may aji dund ci dekki moo dof a kay awalaa yazakkaru ndax dafa fàttaliku daal insaanu xéeféer boobu ne anaa naka ñun yàlla xalaq naahu bin nañ ko min qablu ci njëkk walam yàqu nekkutoon shay an dara fa wa rabbika gën naa ci sa borom ne la naxsurannahum walaay danaa ñu pang leen wa shayatina ak saytaana yañ doon jaamu danañ leen pang boo leen ci genn seen xeew leen su ma la nuxdirannahum topp ñu teewal leen xawla jahannama fag a wàllu xal ca wàllu safara gisi yan mbir mu ñuy way buuf ñoom ñëpp ci seen tànk yi su ma la nan si an na topp danañu nocci min kulli shiatin ci bépp kuréel ayum ko mu ci ñoom ashadu moo gën a tat xetti yan ci jeggat ci jal ci jalgati xetti yan ci ñeme xay rahmaan ci yàlla su ma la nan topp naka ñun yàlla alamu xam nañ bi fi ñu nga xam ne hum ñoom aw laa ñoo gën a xel bihaa ci safara si li yan ci njaar ñi ci gën a xel pour dugg fi xam naa ko wa in minkum xamul kenn ci yéen illaa waariduhaa lu dul ba dana jéggi siraat kaana nekk na maanaam xat man di lu war maqadin lu ñu xatte ala rabbika ci sa borom su ma nu ji topp da na danañu musal la si nga xam ne it taxaw teet nañ bokkaale buñ koy jéggi day xoyaf wa na ñu bàyyi zaalimiina xéeféer ya gis yéen ñi yooyu buuf fiihaa ca safara wa sa tullaan dem jàngeef na maanaam ayat naa suñu aaya yi baynaatin aji leer naññi xaala wax li fi nga xam ne kafaroo wédd nañ li fi ñi nga xam ne amonoo gëm nañ ne ayul fariqay ni ana kan ci ñaari kuréel yi muy ñun ak yéen xayrun moo gën maqaaman ci waay mooy kon ñun ak yéen ku ci gën kër gën caa rafetle wa ahsanu te gën a rafetle na di yéen ci garan place ndaw ñu dof yàlla ne wa kam na naa bëri na bu ñu xalagee xablahum la leen jiitu woon min nañ ciy maas hum ñoom ahsanu ñoo gën a rafet asaatan ci ay meuble lu nekk wari wari yan ak gisuwaay ñoo leen ko gënoon rafet xarxaan ak ak yaram ak ay kër te ñoom ñëpp xalak naa leen yéen bu ngeen fi nekk bàkkoo ay kër ak yaram wu rafet te seen xol yi rafetut fokk ma xalak leen xul waxal ne man ka na ko nekk fi daal ci réer ah boobaa nag fal yamdud na tàllal dana tàllal ngay wax dana tàllal loo ñeel ko rahmaanu yàlla ma dan ak tàllal di ko jay mu gudd fan yokku lépp maanaam dafay amee incha bi maanaam xabar la képp koo xam ne danga nekk ci réer yàlla mën naa dana guddal sa fan yokku jayee na ko soo dee dugg safara sa nastadrijuhum min haysu laa ya'lamuuna hattaa izaa maa ra'aw ba nga xamee ne gis nañ maa la nga xam ne yuu'aduuna def na dëxal leen ko imma benn al'asaaba muy mbugal nga dajeeg ñoom rey leen jàpp leen jaam wa imma benn saa'ata muy mbugalam bis penc ñu dem safara fa sa ya'lamuuna buñ ca xeegee xal si ñoo xam man ana kan huwa moom sarun moo gën a bon makaanan ci place wa ad'afu moo gën a lompañ jundan ci ay soldaar yu koy dimbale bu ñu xeegee foofa danañ xam liñ doon doon laahu yàlla dañu ihtadaw jub nañ dana leen dolli ci ngëm huddan ak njub wal baaqiyaatu way des ya saalihaatu nekk yu hiiw ya xayrun moo gën a rabi ko sa borom sawaaban ci yool wa xayrun moo gën tamit maralan ci delluwaay afaraayta soloma la sey nguur sa nga xam ne kafar dafa weddi daat naa suñ kaawte fi muy xaasi ibnu waayil bu ko defee wa qaala mu wax xabaab ibnu art fekk da ko doon liggéeyal mu ne ko fay ma mu ne ko du ma fay dara mu ne ko wallahi buñ dajee sama borom danaa la danga ma fay mu ne ko yow gëm nga ne danañ dee bay dekki bàyyil bañ hegg foofa dana la fay kon moo tax mu ne ko la uutayann danaa jox maa maalan xalal wala dan ak doom bu ñu heggee foofa yàlla wax nag attala ndax dafa yër alxayba lu faddu ba tax muy wax loola amit tax ndax dafa jàpp an rahmaani fa yàlla adan kóllëre ca loola kàllaa déedéet mbir mi demeeku noonu de sa naktubu xas nañoo bindulu maa yequl li nga xam ni ngi koy wax wan na muddu danañu dolli la ko ñël ko min asaabi ci mbugal maddan ak dolli wan na risku danañu donn ko maa yequlu la muy wax ci xalal ak doom wa yaatinaa dana dikkal yowmal qiyaam fardan mbir mu aji wéet min dooni laay wali si yàlla su ko defee ñëw ne ku tudd ànd ak doo ànd ak dara min dooni laay wali si yàlla alihatan ay yàlla yañ jàppoon li bu wa yaatinaa dañ dëkk yawmal qiyaamati fardan wa taxasoo jàpp na ñoom xéeféer yi màkka ya min doon wali si yàlla alihatan ay xërëm te mooy ay yàlla li yekkoonu ngir nañu nekk ay sandi way ràmm lawum ñaal leen wallahi kallaa li wér ta sa yekk furuna xalis na weddi ñoom xërëm yooya bi ibadatihim ci jaamu gi doon xéeféer jaamu sax danañ ko weddi da yàlla wax na ko feneen maanaam maakaanu iyaana yaabuduna wa yakununa danañu nekk alim ci ñoom diddan di ay noon wax na ko feneen awalam yaraw kon yëpp yàlla ngi koy wax ci aayaat yooyu ma wax la yëpp ma mbëstal ko siraat dañ ko jéggi kenn ku nekkem sa jëf ñii xafa xippi ñii comme avion ñii comme mercedes ñii comme 4x4 ñii mel ni ay welo jakarta ñii nekk ñuy raam xéeféeri ba dugg safara ñii nag di bàkku naan ñoo leen gën ay grand place ñoo leen gën kër loolu dafa jar bàkkoo nekku leen fi bàkku ci mbaax ndax di bàkku ci ay matériel yoo xam ne da ngeen a juddu fekk ko fi dee di ko fi bàyyi duñ leen suulaaleeg moom waxuma la dara nag xéeféer bu bon bi di ansi im nu waay liggéeyloo xabaab im nu art mu ne ko danga ma fay mu ne ko duma la fay mu ne ko bu ndegee sama borom mu ne ko yow comme gëm nga dekki bàyyil ba booba yàlla nag ni waam moom attala al ghayba am ittaxada rahmaani ahdan yooyu yëpp day wane seen ak mbon gi aayaat yu mel noonu bëri na lu mu fi jaare alam tara xanaa yëggul sax xam ne anaa naka ñun yàlla arsal naa xirtal nañ sayaatina saytaani alal kaafirina ci xéeféer yi te ursuhum ñu ngi leen di cojjal azan ak cojjal fala taajal bul yàkkamte alayhim ci ñoom di sàkku mbugal ci ñoom. naan na ñun yàlla naudu nañu lim ndawum ñaan leen seen fan yañ fay dundoog ak seen nox ya addan ak lim yawma naxsuru fàttalikul bis boobu danañu pang muttaqina ñu ragal yàlla ñi ila rahmaani jëmee leen ca yàlla wafdan mbir mu ñuy nekk ay délégation yu war warga nag ñu ne boo génnee sa bàmmeel rek sa jëf ja mooy soppeeku jëmm joo war ne la nga ma nga ne ko déedéet mu ne yàgg nga maa war tey nag maanaam yàgg naa laa war tey yaa war. yàlla ñu ko yàlla defal wa nasuuqu ñi màng mujrimina kàccoor yi ilaa jahannama jëmee leen safara wirdan mbirum nu ñuy woy dox ànd ak mar laa na am tiñ safaata ak ramu ah ilaa man taxlu koo xam ne jàpp na rahmaani fa yàlla adan kóllëre muy baatab laa la la ku ko wax de loo bëri baa bàkkaar dañ la ramu xëlëg wa qaaloo yahuud ak nasaraan yi wax nañ ak na yooyu wax naan yàlla dafa am doom ne ittaxasa jàpp na rahmaanu yàlla wal dan doom ñii ne Xusayru ñii ne Isa ñii ne malaaka yi yàlla ne laqad sa dëgg-dëgg andi ngeen shay an mbir iddan mu màgg mbir moo xam ne màggaa gaa takaadu xaw na samaawaat juróom-ñaari asamaan yota fatar di xotteeku minu ci wax ju bon jooju ngeen wax wa tashaqu di xar al ardu suuf wa taxiru di mabbu aljibaal doj yi hëddan ak mabbu lu tax loolu ani daaw seen ak woote rahmaan ñeel yàlla wal dan doom lii tax asamaan bëgg a xotteeku wa maa yan bëgg yellut li rahmaan ñeel yàlla aña taxe sa muy jàpp wal dan doom koo xam ne in kullu man fi samaawaati amul dara lu nekk juróom-ñaari asamaan wal ardi ilaa aati rahmaani lu lu bëgg di ko yàlla abdan di jaam ku amee jaam loo defee doom laqad ahsaahum wallaahi sa dëgg-dëgg mbir moomu takk na leen wa addahum mu compté leen haddan ak lim wa kulluhum ñoom ñëpp aatihi way dikka lañ ko yowmal qiyaamati fardan mbir mu ñuy ay wéet mbir mu ñuy way wéet ci fàndaañu ci raflewu ci halal ak lépp gis nga ñi nga xam ne amonoo gëm nañ wa amiloo ñu saaleet farataaki naafile yi sa ye jaxan lu xaltu naa def lawum ña rahmaanu yàlla wu dan cofeel ñu soppante bëggante fa innama yassar naaw daal naka jàppalal nañ alquran bi lisaanika ki sa làmmeñ wii ci làmmeñu arab li tu bashira ngir nga bégal bii ci moom muttaqiina ñu ragal yàlla ñi mooy ñu texe ñi wa tunfira nga xuppe bii ci alquran xaw ma nit dan ñoo xam ne dañoo xuttanti ci xuloo wa kam ahlak naa bëri na bu ñu xalagee xablum la leen jiitu woon min qarnin ciy maas xal tuxisu ndax da nga yëg minum ci ñoom min ahadin ci kenn aw tas tasmaa wala nga dégg lahum ñaal leen rikk san kàddu déggoo dara ñoom ñëpp xal ko nañ kon foofu la saar wi jeexee suñu borom di wax yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko rek kanaa gisoo ne xéeféer yi maa xiirtal seytaane ci seen kaw mu leen di defloo lu gën a métti li ma leen sant ñu ca jëlee coono te duñ ca jëlee benn payoor moo tax yàlla xam na fu la ju day ni bu la santee dara nga bañ dana la booleeg ku la ko sant te doo sañ bañ te kooku lam lay sant mooy gën a métti duma nga ca jëlee te doo ca jëlee coono kon nag loolu tax mu wax leen loolu inna arsalna inna arsalna shayatin alal ta ta'usuhum azran yàlla yonent bu leen yàkkamti maa bëgg ñu yàgg su ma leen limal fan yi fi def ci ak caay-caay su ko defee ak waxtu yi fi def ak seconde yi fi def ak seen noy yi boo lëggee ma pang leen dugal leen safara waaye jullit ñi nag ñoom boo lëggee suñ leen di pang dañuy war ñu ne war ga bi ngi commencé sa biir bàmmeel rek booy wàcc sa bàmmeel rek sa xaram tabaski maa nga taxaw sa julli doon julli nekk war waay joxe asaka yi nekk war waay aj màkka ya jàngal quran jokk bokk ga waruwaay bu rafet ne la xàmmee nga ma nga ne ko déeréet mu ne yaa ma daan war ci àdduna teel a yeewu di jàngal quran jokk bokk joxe sa xalal tama tax tey nag yaa may war nga war ko ba ca pencam yàlla ma ñi regle mu xaar la nga war ko jéggi siraat war ko ba dugg sa luusuma ci aljana yàlla nañ ko yàlla defal waaye yéeféer yi nag ñoom kooku moom moom mu ne yawma nahshurul muttaqina ila rahmani ila rahmani wafdan wafdu jamho waafit waaye nag ñooy xéeféeri mu ne wa nasuuqul mujrimina ilaa jahannama wirdan xéeféeri nag ñoom bu ñu dekkee seen jëf yu bon yaa leen di war ñoom au lieu que ñuy war dañ leen di war ñuy sëfa sëf ba diis di dox di ya di yalkat jëm ca péncam yàlla ma taxaw fa junnee dëgg-dëggu ci seen dëggu yi ñu ngi sa jant yu yooyu bax ñu jàq-jàq ba mu soppeeku aw ñaq ba tollu ci ndigg ñi ci baat ñi mu soppeeku géej ñi cay sëmb ñu jël seen téere ci seen waraa zahri ak seen càmmooy jéggi siraat ak la leen war seen jëf yi bon yi ñu mujj surux fa ndax diisaay ba dem safara yàlla yàlla musal ñu ci moo tax mu ne wa nasuuqul mujrimina ila jahannama wirdan yàlla tofal ca ne duñ xam ku leen ramm foofa lu dul ku nekkoon yéeféer tuub wax laa ilaha illallah lu sa bàkkaar bari bari boo demee safara doo fa béel ndax ngaa saxal lu sax ku sax lu sax doo sax safara waaye ku dudd ba dee mu sa wax laa ilaaha illallaah safara ngay sax da nga fay béel ndax ngaa weddi sax ku weddi sax ñi mbugal la mbugal mu sax moo tax mu ne ah la yamlikuuna shafaata illa man ittaxada inda rahmaani ahdan yow rek nasaraan ñu boo ñu nekk fi naan yàlla am na doom ndaw lu naqari yàlla ndaw lu naqari asamaan asamaan xaw naa daanu suñ kaw suuf si xaw naa xar montagne yi daanu nañ ngir askane gi ñu askane yàlla doom ndax saa yow askane yàlla doom askane ko tële doom ku koy wut rek ngaa tële mu mën laa dimbale doom ku koy wut ku pare pour dee la li nga sémboon mu mën koo mottali waaye ku dul dee doo tële looy defee doom yàlla boo xamoon doom ñu torox ndax li ma xam lépp doomam yi la koy jox waaye tey ba mu xamul doom a tax li ma xam lépp ñi ma xam la koy xam la koy jox te ñi ma mooy jaamam yi waaw waaw in kullu illaa aati rahman abdan in kullu man fi samawati wal ardi illa aati rahmani abdan ko xam ne jaam looy defee doom bu yowmal qiyaama yàlla ne na par kenn laay recevoir du ma boole kenn ak sab yonentu du ma boole kenn ak sa ndey du ma boole kenn ak sa baay du ma boole kenn ak sa sëriñ du ma boole kenn ak sab xarit wa kulluhum aatihi yowmal qiyaamati fardan danaa wéet ak yow ba nga foog ne yow laa mos a bind mu daanee laay lazina aamanu wa amilu saalihaat sayaj'alu lahum rahmaanu wuddan ñu nekkoon fii soppante te yàlla tax soppante ci jàkka ja wasifa wa jàng alquran ma daayira ba bëggante te yàlla tax boo ëllëgee tamit seen bëggante nga yàlla da koy continuer rek sof ko ay gañe gañe yi ne woon ci xol yi sa yàlla fa koy dindi wa nazaanaa maa fi suduri min xilin ixwaanan su ko defee ñu bokk soppante foofa ñëpp nekk ay jullit bëggante lool kenn du bañ sa morom kon loolu mooy suuratu Maryama